ñëpp xamni ki dafa wara nek di di silmaxa te du làmbatu muy dox du tour nabi jàmbur ci marché di saga ndey goor ak jigéen te kenn du mer te ñak bakkar ge tax nde borom bakkar ku mu saga nga mer Cheikh Ndaw ku mu saga nga ree mouride ak tijaan yem ci ci ñak bakkar la ko jële kiimaa ni Cheikh Ndaw dong ci bi tarixa doyna wul la jël beneen tarixa bu gu toll señ Cheikh Ndaw mi nga xamni mom la leen di xibar di doomi señ babakar Ndaw dekk ba mu fa wetu ndar di jaara fa la jamono ñeenti fan dongalam ci mu nekk abagulu tur ak ruu dongalam ak aw sant ndax ku julli ñu daal xam na mu sant daal di daloo ab taalibe ci biir ñeenti fan nit ko am ñeenti fan ci àdduna am ab taalibe te amagoo aw tur xar baax nu koo jàll sëñ Babacar Ndaw mi bàyyam dafa génn ab jëkk dikk fa taxaw ak gëléemam laajte ñu ne ko gan nekk ci nit bi laajte sëñ Babacar Ndaw ñu ne ko dafa génn néeg bi ki ci nekk soxnaa ma dafa am gone mu ni góor la am ñu ne ko góor la mu ne sama listixaar nangu na am na ab sëriñ koo kii mooy doon sama sëriñ bu dundee su dundal ma ñàkkub sëriñ dikk fa am na sub gëléem nga teg ko ca kaw laal ba jébbalu ci seex ndaw wëlbati ko dellu te kenn tuddagut seex ndaw ñu tegaate ñetti fan bis ba door a dellu si maam Cheikh Rafa leewu seex ndaw ci basang tuddee ko boppam muy seex ndaw guma mi am na taalibe ci ñeenti fanam ci àdduna te ba muy am taalibe boobee amagul aw tur taalibe ba réew mu bàyyi ko dem fa réew mu ñuy wax ngewul la bàyyi bu ñu la nee ban dëkk ci ngewul neel dëkk bu tudd gol la bàyyi ko woon bu ñu nekk bàyyi ko woon gol jéblu ci Cheikh Ndaw lu mu tudd neel nooyin géey la tudd ak tu la ŋàbb la mu ca sëfan ak gëléem nga la boole teg nos ba ca lal ba jébloo ko ca liir ba liir ba yor ñeenti fan képp mool batiku dellu kon Cheikh Ndaw moomu boole na ci leneen nee na ma bi ma amee juróom-ñaari at képp tànk bu mu dogati ci xàll xam borom góor la jigéen xam ndeem ak bàyyam xam kooka xam dana texem du tex yii ràññi ko ak yii xam-xam ak yii kéemaan borom jamono yi ñu daan dégg ba di leen jéem a siyaare ji di dugg luy naaw mbaa luy daw ci ndox mënuñoo def lu ko raw mënuñu sax luñ ton bi maanaam te du xaste nettali dara la ku li lu rëy nag lu tuutan lu nekk day mer waaye fekk na xaste taxut loolu jóg day dëgg gu ne fàng fi biti ku làmb daj ko xool gis saa boo ne ñetti kemm xëy na ci wenn xott nag kër boppam golo ci werante nga fay yendu waaye da nga war a muñ yow itam ba dem kër gàddal ma door koo wax na ngeen xam ne tarixa bii sëriñ Tuubaa kër yi woote ko mu yoonu muridullahi leneen mun ne toll leneen mun ne mel jamono jii lu toll te ñu jàng tubaab ak ñu jàng anglais ak français ñëpp wëlbati ko jëm ci sëriñ Tuubaa nag dara taxut lu muy sëriñ bi rusan naa bind sax lii dara jaam bi ma dégg nasaraan bi dem ci géej gi naa bindit la mu leen doon won ci lu ñu mënta faj bi mu demee ci gi waaye ñoom ñu ko te di boromi te bind ko te sëriñ bi jaloore ya rëy gone yi génn jamono yi jàng ba jàng wi gudd ñëwoon leen secret bi ñu ubbi ko ci sëriñ Seex Ndaw mii nga xam ne léegi boo ko tuddee far gone yeeg jigéen ñi ñëpp xamandoo ko muy si